asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 26 août 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yëglikaay yi nag sunu làmb la tey léese ko yëglikaay bi di sunu làmb nag fa lañ koy njëkkee mu mel nag diggante Modou Lo ak Ama Baldé fi mu nekk nii day ca la yëglikaay ba xëy ñëwaat ñoom ñaar nag wax yoo xam ne waxante woon nañ ko fi ci ay jamono ca la sunu làmb xëy tey ñëw mu mel ni ki Modou nag ca jamono jooju daal la mu xamaloon da ko da ko la mu ko xamaloon daal mooy man ak yow ba ñu bëre itam ci ay secondes yu ndawa a ndaw laala daan te man duma sa moroom ci mboppat moo xam ne daal seqoon nañ ko muur wanoon na ko ne day man maa la gën a gaaw te daanoon naa la jël boo xam ne nii bu gaaw ak gaaw la amaa ne ko d'accord waaye léegi day jàppal ne man Ama Baldé màgg naa de li leer ba leer day fi mu nekk nii damaa màgg bu baax a baax a baax te sama diggante ak yow nag jàppal règlement de compte moo ci am Assane Ndiaye nag mu mel ni dégg na leen ñoom ñaar moo tax mu ne leen day li leer ba leer daal man pare naa seen combat yéen ñaar muy Modou ak mooy sama plan A wala boog Modou ak moom Assane Ndiaye loolu la xëy tey di ko wax sëñ Modou boobu combat diggante Ama Baldé ak kii nga xam ne nii moom moo di Modou Lo waaye leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi di leesa ko moo ci ñëw yëglikaay bi daal lim ñu xamal mooy li leer ba leer day fa nga xam ne démb moo doon ca TFM jàppal bàyyil ba meloon na fi ni tulleeg màlle Balla Gaye moo njëkk a dugg ca émission Lamine Samba la moo xam ne nag moom daal nangul na ki nga xam ne moo di Modou Lo ak Roam waaye tamit la moo xam ne daal mooy bu yeboo daal ñun ñi nga xam ne ñooy mbër yu mag a ñu jéem a tàllal xale yi loxo bëre ak ñoom Gris Bordeaux tamit dugg na fa dal di xam ne daal ne moom li leer ba leer de digganteem ak kii nga xam ne nii day moo di Balla Gaye numéro 2 li leer ba leer daal mënta ñàkk ndax nag foofu set li am ci seen combat Bombardier moom la mu xamal Balla Gaye wala la mu xamal kii di Modou ne na ko doo sama roi de man moom li am ba des daal mooy doo sama roi ndax nag koy nekk roi am day fekk nga daan ko te man Bombardier yow Modou Lo man maa la daanoon ba toog ci sa kaw yëglikaay bi tey moo xëy ñëw ci lu mel noonu waaye dañuy delluwaat fii nga xam ne nii de moom moo di ca yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb yëglikaay bi nag dafa xëy tey ñëw di ñu xamal ne daal li leer ba leer de géejawaay moom jàppal ren moom VIP dafa mel ni seeni affaire dox la dox na waaye ñi ca des moom topp ca seen ginnaaw moo xam ñoom Sa Thiès la ak ñenn ñi ca des moom seeni mbir boo bëggee dëgg boo bëggee dégg dëgg moom dox dese na koo def waaye ba tey sunu lamb itam ñëw na de dinu xamal ne li leer ba leer de Ama Baldé ndax ñii di VIP est-ce Ama Baldé nekkul di leen déranger ndax bu ñu waxee digganteem ak Bombardier mu lànk ñu ne digganteem ak Gris Bordeaux Gris lànk moo Modou Lo Modou Lo itam lànk moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne day kii nga xam ne nii day moo di Ama Baldé ndax nekkul di déranger ñi nga xam ne nii day ñoom ñoo di VIP yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinañu ko wax leneen loo xam ne tamit mën nañ koo fekk fii nga xam ne moo di ca sunu làmb mu mel ni ki nag moom ren day ñëw na def lii nga xam ne nii day moo di bilan wu saison bi jàpp na ne bëri nañ ci 638 combats disputé nañ ko ci ak lu toll ci 68 journée yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne tamit yëglekaay yi wala yëglikaay bi. da caa ñëw mooy kii nga xam ne ni day moo di Modou Lo muy roi des arènes yëglikaay ba mu ngi ñuy xamal ne day jàppal demoon na fii nga xam ne ni day moom moo di fandeen waaye beneen VIP nga boo xam ne ni day ab VIP lañ ko tuddee ci lamb ji muy Lac de Guiers numéro 2 mu mel ni ki nag moom fi mu nekk nii day yéeg jafe na ko maanaam daal VIP la boo xam ne ni day pour mu dem ci kaw lu ko jafee jafee jafe la waaye yëglikaay bi ba tey ñëw na ci kii nga xam ne ni day moo di Moussa Dioum mi nga xam ne day mu ngi ñuy xamal ne samedi jii ñu génn day mu ngi doon feete li nga xam ne moo di anniversaire am yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ko wax waaye tamit yëglikaay ba yemu ca ñëw na ci li nga xam ne nii de mooy lambi simple ji xam wan ñu ki nga xam ne moo di kalmu nduur di garambañik ca tool ya muy bay waaye leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da caa ñëw mooy kii nga xam ne nii day moo di gaskel jàmme mu mel ni ki nag ren ab saison moom yëngutu la def waaye la mu yëngoon nag moo bokkul ay façon ndax nag boo bëggee dégg-dégg yëglikaay bi ne day am na ci victoire am ciy defet waaye suspendre nañ ko ci tamit lu toll ci ñeenti weer yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu ko wax hôtel Dior moom tamit ab saison taxu koo dox waaye li leer ba leer daal jàppal def na tamit ay yëngu-yëngu ci saison bi nga xam ne nii moom moo jeex boo bëggee dégg dëgg yëglekaay bi moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni noonu mu mel ni ki nag am na xale boo xam ne tamit yëglekaay bi ñëw na ci moom de lim ñu xamal daal mooy ki nga xam ne moo di Mor Kankang day leen danañ xale la boo xam ne day ëllëg mën naa bokk ci làmb mën na cee def lu leer a leer a leer ndax nag yëglekaay bi ñëw na tey ñëw wan ñu ki nga xam ne nii moo di Mor Kankang waaye ay xale ngi yoo xam ne tamit yëglekaay bi xëy na tey wan ñu leen muy kii nga xam ne moo di ñaabu ndaw ak ki nga xam ne moo di Ibra Gaabu Petit Baboy ak kii nga xam ne nii day moom moo di Petit Ñaa yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci ñoom wan ñu seen ay bagaas mu mel ni ki daal li leer ba leer coow li mel ne ni tulli ak màlle fi mu nekk nii ci diggante Modou Lo ak kii nga xam ne di moo di Ama Baldé ak promoteur yi nga xam ne bëgg nañ ko dëgg moo xam Assane Ndiaye la moo xam sëñ Modou Ñaa la waaye li ma xam ba xam ko daal li leer ba leer làmb ji moom balaa neex rek il faut mbër yi jaxasoo dal di bëri loolu mooy li nga xam ne ni daal moo ci sama gis-gis man Talla Ndiaye. ko Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa lay nuyu. fay naa la Ndeye Koumba Fall di la nuyu di nuyu internet yi suivre Leewtoo TV yëpp di leen ziar leen balu ak xam nga di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci ñoom. loolu am na solo Babacar ñu ñëw ak sunu mbokk internet yi si ñaari journaux yi nga xam ñoom ñoo fi teew tey muy sunu làmb ak les échos sunu làmb moom la ñuy xëy ñëw si combat bi nga xam ne taxawagul de waaye mi ngi mel ni taxaw ndax ñaari mbëri ku nekk ngi sànnante ay kàddu mooy diggante Modou Lo ak Ama Balde. waaw waaw ngi Modou ak Ama Balde waaw. bien sûr Modou Lo Ama Balde parce que loolu xam naa seen wax buy wax joo xam ne waxante woon nañ ko ci ginnaaw bu lu yàgg moom la journal bi xëy tey indilaat na ko ñoom ñaar nag. comme Moodu li mu ko xamal mooy daanoon naa la ci ay seconde xam naa ci mbapat la bu ñu dajee woon ca parcelle mu daanoon ko fa loolu nag mooy làmba ah. xamal na ko nit duma sa morom waaw bëree nag noonu lay demee parce que làmb moom loo ci mën a dégg mbër mi mën ngeen a bëri ci mbapat nga daan ko te bu ngeen demee ci arène man na bañ a demee noonu ndax réalité bi nekk ci lutte avec frappe dafa bokkul ak réalité bi nekk ci li nga xam ne mooy lutte simple yaa ngi dégg waaye loo ci mën dégg daal loolu wax ju nga xam ne nii la wax ju ñu waxoon ju ñu waxante woon la ca ginnaaw lu xaw a yàgg amaa itam ca jamono yooyu mu waxoon loolu tontu woon na ko xamal ko ne duma sa maanaam amaa xamaloon na ko ne daal man léegi màgg naa yaa ngi dégg daanoon nga ma ci mbabat mais léegi damaa màgg loolu nag liñ ci xëy na li ci yëglikaay bi jublu mooy fi mu nekk nit ñi ni wax seen combat dañoo war a bëre dañoo war a bëre moo tax tey xëy na yëglikaay bi ñëwaat indi wax yooyu mais lu mu ci mën a doon daal fi mu nekk nii seen combat moom dafa mel ni waaw daa mel ni lu ñor daal wala nit ñi bëgg nañ ko bokk waaw lu mënta xew daal diggante Modou ak Ama moom daa mel ni fi mu nekk nii rêve la pour amateur u làmb yi kantaan nag Modou dina ko nangu wala du ko nangu actuellement fi mu nekk nii loolu ci loxoy Modou la ne parce que c'est le roi des arènes comme niñ koy faral di wax rek moom mooy choisir ay adversaire am mais ñu bëri tey boo leen dékkee micro dañ naan na Modou Lo Ama Baldé wala ñu ne la Modou Lo Tapha Tine làmb nag mooy composé woon noonu quoi mooy dem ba benn moment ñuy tudd Ndeye Coumba Fall tudd Babacar wala tudd kii di tudd Kële. waaw Babacar est-ce que comme euh, Modou Lo Ama Baldé dina mën a nekk ci saison déwén bu ñu jëm même su fekkee ni amateur yi sax soxla nañ ko mais soo déggee kàddu Birame ñi ngi ak kàddu Modou Lo ñoom daal bañu na ko dem mais du nekkagul seen plan bi nga xam ne mooy lu immédiat nekkul xam naa fii ren euh, euh, déwén saison prochaine ci ubbee nekkul combat bi nga xam ne Modou daal sawar na si pour le moment. ah waaw ñoom de loolu la ñu wax waaw loolu la ñu wax et puis loolu lañ di jàppal parce que li ma wax rek. mooy que ni Modou Lo dafa am staff te bu ñu nee staff bi mooy Birame Gningue ak ñeneen ñi ca des Rock Énergie bi yaa ngi dégg ñooñu nag bu fekkente ne ñoom gis nañ ne Ama même saison projet du ñu bëree ak moom mooy li ma la wax rek deesu leen a lu bëri ah, parce que ñoom ñooy roi ñooy xool actuellement ku ñuy bëre Ama nag fi mu nekk nii tamit li ñu koy wax mooy tamit nekkul ne Modou Lo dong moo fi nekk comme adversaire parce que ay adversaire am bëri nañ ci làmb ji Gris Bordeaux ngi fi Bombardier ngi fi Tapha Tine ngi fi yaa ngi dégg keneen keneen ak keneen keneen ngi fi parce que làmb moom nga ne nii da ngay visé wu ci kenn rek ne moom la war a bëreel non non loolu du làmb même bu fekkee da bëgg bëre ak moom te parewul ngir bëre ak yow tamit a wuti leneen waaye tamit du tere xëy na nit ñi ñooy dem ba benn moment ñu gis naan lii war naa am lii war na am lii war na am waaye lu mu ci mën a mu ci mën a doon daal ci biram ñu ngi defoon ñoom ama bokk na ci lu adversaire yoo xam ne sóoraale nañ ko ngir bëre ak moom waaye xay na jàpp nañ ne du saison prochaine wax loolu tamit liñ ci nañ ci jàpp ne que tamit làmb euh, du biir day xëy si waaw mën nga signaler gauche ba li yàgg nga jàdd droite tout est possible pour làmb tout est possible et aussi combat boobu tamit possible na pour Serigne Modou moo ñëkk nekk promoteur bi nga xam ne moo signalé wu ne combat Modou Lo ak na ko mais si kaw ñaari mbëri raisonnable maanaam lu laaj ay cachet yoo xam ne c'est raisonnable na daal Babacar. Ah, waaw waaw waaw loolu moom defe naa bu ne bëgg nga tëgg Modou Lo ak Ama Baldé waaw gis nañ sax ku mel ne Assane Ndiaye wax na yaa ngi dégg moom nee na bëgg na Modou Lo Ama bëgg na Modou Lo Tapha Tine waaw kon sëñ Modou yaakaar naa c'est ma mën nañu sax mooy premier promoteur ci promoteur yi par rapport ak bu ko dee wax mooy li muy tëgg ci ay journée par dix journée la tëgg euh, euh, euh, ah, ok kon xëy na moom yaakaar naa am na droit bëgg boobu journée itam defe naa mbër yu bare wala mbër yu mag yu bare bare defe naa tey ci làmb ñu ci bëri ci loxo sëñ Modou leen jaar kon yaakaar naa amul affice boo xam ne nii war na ko mën a tëj ci làmb mais nag xam naa ne Ama ak Modou Lo moom ku koy tëgg itam financièrement di nga làmb sa poche bu baax a baax a baax sëñ Modou nag ñu ngi koy ñaanal bu dee lu gën la ci moom yàlla na ko ko yàlla jox su dee beneen promoteur ko war a tëgg te mu gën ci moom yàlla na ko ko yàlla jox mais xam naa ku ko tëgg de ah da am affiche bu dooy war de. keneen ku signalé aussi muy Assane Ndiaye Assane Ndiaye bawal bawal moom nee bëgg na combat Modou Lo Tapha Tine dafa bëgg mel dafa mel ni euh, il faut aussi bawal tamit ñam euh, ñam couronne bi. <laughs> bawal Tapha Tine de dégg nañ ko mu ne bawal couronne bi la bëgg yóbbu déwén bawal ay ambition la couronne bi nag ci kenn la nekk ci Modou la ne waaye loolu lépp mu lay wane daal fi mu nekk nii ndey gumba làmb ji moo jax rek te couronne bi itam ñëpp moom la ñuy wër ah Modou Lo nag actuellement moom la yàlla dogal ne moo ko yor couronne ba daal nga yeewoo parcelle li ci des nag dañuy yónni yàgg rek ba xam lu mu ñu indil déwén yàlla nañ ko fekk te tal ko ñu xool ba xam ndax dañ koy foqati ci muudu wala muudu day garder couronam dem ak moom waaye loo ci mën a dégg daal Assane Ndiaye itam am na droit bëgg ko ndax promoteur la comme promoteur yëpp te nee na déwén bëgg na tëgg ay grande affiche ñu koy ñaanal moom tamit comme yeneen promoteur yëpp ku ko ci ku mu ci nekk sa wërsëg daal nga décroché muudu ak ama wala muudu ak keneen waaw ñu dem si Les Échos Les Échos moom VIP yi noo fa nekk di wax ku si ñoom Balla Gaye ñoom Bombardier euh, ñoom daal li ngay wax daal seen adversaire yi nga xam ne ñu bëgg nañ ko bëgg nañu euh, tasanteeg ñoom déwén ku si mel Balla Gaye moom nee na forcé wul benn combat ak euh, laajul benn mbër du du daan du laaj Modou bi nga xam ne daan na ko donc forcé wul dara parce que il a été roi à 26 ans la nekk roi des arènes ki si mel ni Bombardier moom dafa ne ah, Modou Lo mooy roi amaan waaye di nekkoon nekkoon roi am daal ku ko nekk daal wax na daal fa fan nga nar jëm ak si saison bi ubbee. waa loolu démb lañ ko doon waxante ci yaakaar na émission jongante bu Lamine Samba suñu grand ñu koy nuyu di ko ziar Bombardier moom dafa lànk gandaara ne mu du roi parce que nag roi ne na da koy daan. te moom moo daan Modou Lo loolu la wax moom loolu lay réclamé waaye nag loolu mënul parce que moom bi ñu koy wax roi des arènes Bombardier ñaar yoon yi mu ko jël yëpp ah, am na ci bi bi jamono. nekk woon roi Tapha exactement kon defe naa ne bu ñu ko xoolee ci contexte boobu jamono yooyu Tapha Tine day taxaw ne ko kon yow doo sama roi Gris wax ko ko kon yaakaar naa nag fi mu nekk nii moom Bombardier donte am na droit wax loolu itam dañ ko naan nag Modou Lo c'est le moom mooy li am actuellement loolu la yàlla dogal bu dee Balla Gaye la tamit moom ne ne bi mu koy jël jamono ji la gënoon a metti bi muy parce que à l'âge de 26 ans la jël roi des arènes actuellement moom jàpp na ne fi nekk nii amul lu muy ci làmb effectivement parce que tamit Balla Gaye yaakaar naa ne fi mu nekk nii tey amul lu muy xëccu naan diw laay bëreel wala ma bëri ak diw parce que am na lu mu def ci làmba waaye nag lu mënta xew rek ak lu waay mën a wax ak foo mën a dem foo mën a dikk Modou Lo c'est le roi des arènes fi nekk nii loolu moom mooy li buur bi dogal fi mu nekk nii daal ñu nangu koog ñu bañ koog mu daanoon laak nga daanoon koog bañ bañ bëgg daal Modou Lo mooy roi des arènes parce que tamit moo ko jël ci kaw Eumeu Sène loolu am na solo Babacar nu delluwaat sunu lamb sunu lamb yi ne xamal ni que arbitre yi mënul rek di nekk di arbitre euh, si si biir lamb ji di ngi def tamit social ndax weekend bi passé ni ngi woon Mbodjén ñoom euh, ñoom Sitor ñoom Babacar Diop ñoom Pierre Malick ni ngi woon Mbodjén yóbbu woon fa juróom saaku ceeb ak ay euh, ak ay saaku yére yu bëre jox ko foofu nit ñi nga xam ne soxla nañ ko. waaw muy loo muy lu am am solo ñu leen di nuyu di leen ziar kuréelu arbitre bi kuréelu arbitre yi sax laay wax parce tamit defe naa ne ñoom nit ñi dañu jàpp ne arbitre kese kese la ñuy def non non ñoom dañuy yëngatu ci social ndax dem nañ fu mel ni Mbodiène toog fa def fa lu mel ni saaru séminaire wala yooyu waxtaan pour def seen bilan wu saison yaa ngi dégg def ci lu dugal ci wàllum social ak lu jëm ci wàllum football loolu tamit muy loo xam ne ñu ngi koy sali di ci nuyu ko mel ni Sitor ñoom Babacar Diouf xam nga ñoom euh, Matar ak ki nga xam ne nii moom moo di samit sama nit di nit bu baax a baax ma koy nuyu di ko ziar muy Malick Ngom vraiment démb gis nañ loolu lu rafet la daal dem nañ jël ceeb jël ay yére jox ko sëriñ foofu ñu jox ko yi nga xam ne yu ko teewoo la ñu muy loo xam ne daal lu rafet rafet la euh, kon daal arbitre yi vraiment daal mention spéciale daal ci loo nga xam ne def nañ ko dem mais nag la ca garaaw mooy match bi dañ leen a dóor 2-0 <laughs> ah xaw ma ko guulu ci ñoom de waaye Malick daal ne na ma dañ leen dóor 2-0 moom <laughs> muy lu doy waar. <laughs> doy na waar Babacar nu jeexalee ak Leewtoo TV Leewtoo TV Leewtoo point net dañ ñuy xamal ni que àjjuma incha euh, si la Modou di def caravane boobu sargal euh, Modou dina wër parcelle dem Ngor dem yoof balaa boobu midi dina amal benn point de presse fee si euh, kër Birame Gningue Yoff teg fa. ay añ suñu añee pare nag si la caravane bi di di commencé Babacar. waaw loolu am na solo parce que tamit nit ki tax nga doon li nga doon ah boo goree di nga ko delloo cër ba te xëy na boo gisee mu bëgg a def caravane boobu yaakaar naa xëy na leen la ci jublu remercier ay supporters yi nga xam ne ah buy bëri dañuy sonn di daj ay coono dagg ay biir ñu di ko daj xëy na moo tax mu bëgg a def caravane Parcelles ak Ngor ak Yoff ak ay wokk xam nga dëkk yooyu nga xam ne yëpp jàpp na ne ay nitam la ñu di ko supporter loolu tamit ñu koy ñaanal mu réussir ko rek. ak jàmm vraiment daal làmb moom noonu la boo nekkee ci bés say nit ak fu ne nit jógee fa di la jàppale soo amee ndam nag c'est très normal nga delluwaat ci ñoom remercier leen parce que mënoo ku ci nekk nga fekk ko fa mu nekk jox ko loxo déedéet mais nag li nga mën mooy caravane ñëpp gis la nga remercier ñëpp loolu vraiment di geste bu nga xam ne ñu ngi koy sali di ko ñaanal mu dugg ci suñu rahmaan rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin amin Euh, Aïcha Faye madame Niang di nuyu aussi sama yaay depuis nii di nuyu euh, sama doom Mohamed Diouf di nuyu aussi samay doom yooyu depuis Parcelles Assainies maam Diarra Penda Junior Sëñ Fallou ak bébé Rokhaya di nuyu Khadija Diallo chéri Astandine depuis Italie di nuyu aussi Dadi Gueye maa ngi koy nuyu lu bëre Babacar. waaw noonu lay demee ñuy nuyu ñëpp ah, rawatina ñi nga xam ne ñoo internet di suivre TV rek. xam nga fu ñu mën a nekk parce que comme li ma waxoon keroog rek ki nga xam ne mooy wax daal ki koy déglu mooy mbokkam kii feeñ tamit kii seetaan mooy mbokkam kon ñi seetaan ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom Ousmane Gueye Mamadou xam nga euh, Mamadou Kaolack Diallo gaa yëpp duñu leen fàtte xam nga waa Lisbonne waa Italie Allemagne Angleterre France fu waaye ne di ñu suivre ak fa mën a si àddina bi États-Unis Brésil Argentine bu ñu limee dinañ dañuy nuyu ñëpp di leen siyaar di leen ballu ak xam nga di leen ballax di leen ñaanal jàmm di wax ne rek ñun ñoom ñoo tax ñu fiy toog kon dañ leen di nuyu di leen ziar eh, ci Leewtoo TV mais duma ma fàtte nga xam ne nag moom moo di Khadiros Ndiaye depuis Allemagne maa ngi koy nuyu bu baax a baax tuuti yaay sar nuyu nañ ñëpp balu ñëpp ak. Aïda Diouf duma du ma ko fàtte ay Aïda la maquilleuse tey moo fi jaar. la maquilleuse la maquilleuse. doo nuyu taal taal te ay verre la indi. taal waaw taal te ay ay lunettes xam naa ko xëy na day jàng wàllum kii fan yi docteur docteur xam naa xëy na daa dugg ci cours yu bees ñu koy nuyu di ko siyaar mais di nuyu tamit coach su jabam depuis France moom daf ñuy béggee bu baax a baax ak sama benn grand bu dëkk ngaay Cédric Diédhiou kenn du moom moom ñàkk caaxaan laa ko tudde Séddo maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuyu waa kër gi yëpp rawatina DC Thialis Faye ak ñoom jaw ak tout le monde di balu ñëpp ak mention spéciale à Aïda Diouf <laughs> jërëjëf